plus ay wax ak ay visite ngeen ngeen ngeen. ngeen gën a gën du loo xam ne da nga koy da koy da koy da nga koy da nga koy yàkkamte. Mhm. da nga koy yàkkam déedéet. et pourtant dans l'opposition vous nous loolu yëpp dina ñëw bu ñu yàkkamte nañu may sawaay fii ak six mois. est-ce que naxu leen Sénégalais avec ce fameux projet. déedéet non non déjà le projet c'est quoi sec. projet bi nga ñu doon jaayee moom laa gëm moom laay défendre tey jii nii ngeen fàllu Ousmane Sonko nañu yéen ciy liggéey mais projet bi lan la pour sénégalais yi nekk ci jàmm loolu mooy projet bi ah sénégalais yi lekk bu suur naan ba mànd am sécurité loolu mooy projet bi dindi fi euh, mal gouvernance jub jubal jubbanti. waaw mhm. ah, loolu mooy projet bi. déjà jub jubal jubbanti. waaw slogan wu Mame Boye Diao la woon. donc rien rien rien de nouveau. foofu aussi yéen nax ngeen sa euh, kenn. non mais on sénégalais mais sénégalais am nañ xel. on vous attend à l'œuvre. mais sénégalais am nañ xel ñu leen di xaar mais sénégalais am nañ xel de kenn nax kenn mënu leen nax. boo leen naxee euh, euh, bés a ngi ñëw danañ. est-ce que c'est pas ce qui explique est-ce que c'est pas ce qui explique critique yi yaa ngi naan nit ñi dañuy critiquer rek mais. Mm-hmm. Euh, impatience bi la aussi vous avez beaucoup promis. waaw c'est vrai c'est vrai c'est vrai sénégalais sonn nañ kenn ku ne dangay xool ci sa bopp. Mm-hmm. dund bi cher na problème yi bëri na mais gars yi ñu ngi ci ñu ngi ci réflexion yi ñu ngi ci réflexion yi je pense que d'ici peu affaire yi moom dina changer man loolu laa gëm. Mm-hmm. waaw mais est-ce que xam ngeen yoon bu ngeen di jaar. ça si bien sûr. pour la réduction des des des denrées. le le premier ministre wax na temps yee passé. que ne mënuñu ko war supprimer euh, si rapidement parce que ça ne dépend pas. xam nga importation mais waxuñu woon loolu en fait. bi mu nekkee dans l'opposition xam nga xam nga importation yi. il faut ñu comprendre benn su benn affaire importation yi ki gouvernement maîtriser wu ko c'est des hommes d'affaires ñoom ñooy dem jënd seen bagage. on fixe les prix à l'étranger voilà mmh. jënd seen bagage ñëw fay seen taxe et tout tout ñëw fay xam nga jënd seen euh, jaay seen affaire pour am ci bénéfice état. munu ko maîtriser à cent pour cent li mu mën mooy créer des alternatives mm-hmm. fexe ba développer yenn secteurs yi comme agriculture élevage ak pêche yi trois bu développer en fait ñu fexe ba ba ba production bi yegg au niveau au niveau national. Mm-hmm. importation day wàññeeku. mais justement la production naka lañ ko mën a augmenter bu fekkee ne on on fait toujours les mêmes pratiques dëgg la transparence bi baax na. Mm-hmm. Euh, mais moment bi ñu ko séddale rek ça renseigne sur le problème. on dépend trop de de de l'hivernage. alors que Sénégal ndox. du fi jeex les terres. pareil jeune bi jeunes yi comme yow comme man comme ñeneen mhm. bëri nañ mais on ne cultive on ne cultive que trois mois sur douze et avec ça naka la ñuy atteindre li nga xam ne mooy la sécurité alimentaire ah loolu loolu loolu c'est pas c'est pas du lu jafe ah pour man du lu jafe. ah oui vous pensez le réussir. non non Macky Sall waxoon mais pour man du lu jafe xam pour man pour man du lu jafe gis nga gis nga bu ñu fexee bay bay bay six mois wala huit mois. Euh, douze mois wala douze mois na nekk am na loolu loolu problème bi lan la mooy problème ndox Sénégal problème ndox la am Lac bi tey Lac de Guiers bu ñu fexoon tey ba dugal ko ji si biir Sénégal ñu tas ko fépp cultivateurs yi. dinañ mën dinañ waaw xëccu ndox bi cultivateur dinañ mën a bàyyi noor dinañ mën a bay bay nawet boo gisee gis nga gars yi nga xam ne ñooy bay bay bay noor di xaal bi bëri na xam nga yenn produit yu bëri léegi noor da koy gis. Mhm. waaw c'est parce que euh, euh, ñoom fexe nañ ba bay bay am ndox vingt quatre heures sur vingt quatre. est-ce que est-ce que est-ce que.